إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دار كبيرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيماً سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيراً بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

جميع المؤمنين السلام عليكم te sell jëme ko ci ku tedd te sell muy Seyid Cheikh Ahmed Tijani ñu ngi koy dalal jàmm ñu ngi koy masawu coon ndax it masul sonn pour boppam sonn rekk jaamu yàlla yee tax lu mu sonn rekk jullitu yàlla yee tax lu mu sonn it pour nit ñite rekk moo tax kon nag ñu ngi koy nuyu ci turu ñépp di nuyu itam sang yu tedd bi mu àndal rawatina sunu wayjuru bopp Seyd Ahmed Si ak sunu wayjuru bopp Cheikh El Hadj Malick Si al Ibn di nuyu itam sunu wayjuru bopp di Serigne nakaru Al Hadj Bachir Diagne kilifa diine ndax yëf yi dafa yaatu te boo bëggee tudd ñépp sax ñu yendu fi waaye li am solo mooy kenn ku nekk rek moom mu yëg sa teewaay ñu nuyu itam kilifa yi nga xam ni ci wàllu politik ñoo yore parti yi nekk ci réew mi ñëpp ñoo toog ci gannaawam moom bu jógee dana leen sant ndax seen teewaay yépp yàlla ak jëmmam moo tax ñu ngi itam nuyu membre corps diplomatique yi fi teew moom itam bu jógee dana leen tudd ndax jëmmam moo tax ñu teew fi ñu ngi gërëm itam ordre des avocats seen mbokk di sunu wëllëre maître Madické Niang waaw teewal leen fi ànd itam ak maître ma soxna kan ñu ngi nuyu itam gor yi fi daje yépp ndax am na ku nga xam ni ku baaxul rekk doo dem ci jataayam waaw waaw moo tax jàpp nañ ni ñi fi teew ñépp ay sang lañ kon nag ñu ngi nuyu ñépp ñi nekk ci biir salle bi ñi nekk ci beneen salle bi ci gannaaw ñi nekk ci kuur bi ak ñi nekk ci biti fa tabarakallahu ñu ngi sant ñëpp di leen bàllu ak di leen ma masawu coono bis benn toll kenn ku nekk itam xëy na na nga bëgge woon bu ñu la ko defaloo it nga xam ni ni circonstance bi demee la nga bal ñu ci lool ñu ngi gërëm itam euh, presse national et internationale ci seen wàllu taxawaay seen wàllu yitte ak ñëw gi ñu ñëw pour couvrir événement bi ngir xam ni kii toog fii du nitu tariqa du nitu famille nit la ko nga xam ni àdduna yépp ko bokk waaw mu mel ni nag njëkkoon nañu jàpp événement bi en tout ñu jàppaat ko tey mu antu mu mel ni yàlla borom bi moo wax ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko bul di dogooti ci ni dinaa def nangam ëllëg ndax mën a doon ci namu namu yàlla rek la aju te ku moomul sa bopp te nekk ci programme jaamur doo dogul sa bopp kon nag wala taqulanna li shayin inni faacilun dalika gadan illa an yasha allah mu mel ni kon nag bi amul yàllaa ko dogalul bi am yàllaa ko dogal noonu rek lañ ko gisee asa an takrahu shay'an nag wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum kooku mooy li jëm ci événement bi li tax bële amul lu tax bii am bu ñaareel bi mooy li ci tem bi mooy l'unicité de Dieu waxdaniyatullahi azza wa jal mu mel ni nag duñu ca sori ndax wolof mo wax ni ku njëkk a yeewu borom ndékki tëddaat kon nag ki wax temam bu jógee dana wax ak yéen ni mu ko déggee waaye ñu mës a dégg ci moom rekk benn kàddu mu mel ni firi na lépp te mooy dafa wax ni yàlla fi mu war a tëdd buñ ko fa yëkkatee dana bàyyi kàmb gu nga xam ni lu ne dina ñëwati te du fees kon nag loolu firi na ni am na ku nga xam ni moom kot mët na lépp bi ci des nag mooy moom mi def waxtaan bi du ñu wax ci moom direkt ma naan leen mooy lii mooy laa waaye dañ ko bëgg tënk ci ñeenti kàddu ñeenti kàddu yi nag boroom xel lañ ciy waxal yàlla ci alquran bëgg na lu mu mën a doon nañ ko séq ak borom xel ndax borom xel ñett mooy tax jëfanteeg moom di yomb moo di dana la mën a dégg te du boole ca dégg ga li ñoo tudde égoïsme dana la mën a dégg te dégg ga du ca boole lu ñoo tuddee fanatisme dana la mën a dégg te dégg ga du ca boole lu ñoo tuddee malhonnêteté intellectuelle moo tax nag wax ji ku dàq ñett yi rekk moo ko mën dégg mu mel ni nag ci werante bopp ba tey juróom ñaari at ku ne yaa ngi laaj werante bi bari lu nekk jib na fi waaye bu jëkk bi ci am solo mooy wolof moo wax ni bu nit ñépp feccee dof jekki dégg li suuf waaye li ci kaw taxul ñu wax bu nit ñépp feccee dof jekki mana loo gis dafa am kuñ ko séenoo kañu ko séenoo nag bu ñu demee ba ñañu ko séeneewul di ko xëccoog moom booy ba mu toog nag seetaan ba xam luy xew kooku mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi ba tey ci wàllam wolof moo wax ni mbott yi nawet yépp di sab nawet ku leen bëgg a tàccu sa tool dina booy waxin la te moo di bu dee lu yëngu ni la jógal nga jóg lu xew ñu ni la waxal nga wax lu ñu bind ñu ni la tontul nga tontu daa dem ba doyati te am na kilifa gu warul doyati ndax nit ñi te moom ca la bokk bu ñetteel bi arab moo ko wax شاعر بدف وخني تلو باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا وقلنا اي نعم فع. فع. ويكت بنانا ما ام دق كمتخ دي بوكي جاسي ma yëgal la ni waaw du boy lex dégg lay laaj waaw ah. maa am dëgg ku mu taxa a jaas jaasi ñu yëgal la ni waaw du boy lex te moo di eh, nit bu fekkee ni la mu woote ci moom dëgg la ci moom te yàllaa ko def jarul xuloo kon nag boo ca xuloo bu la nit ñi ne waaw it te fekk du yow xamoo doy na nattu nga woote loo gëmul ci sa bopp moo tax ki gëm nag li ko yàlla def soxlawul ñu di ko propagandal moo tax bi ñuy ñëw mu ni mayleen leen ma rekk bu leen wax ci man dara ma ni ko lu ñuy wax ci yow amatul ndax li nga doon roox yee ko yëg ndax Seyyidna Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla daf ko yónni bi mu ñëwee ak li ko yàlla yónni mag ña ca pénc ma yëg ni li mu yor bu ko doxalee lañu tekki woon dootuñu ko tekki ñu seet ci biir fameem ña bokk ak moom ñoom xalaat ñu ni leen moom day dafa di ndaw te li mu indi buñ ko bàyyeeg moom damay ragal rekk mu am lu mu yàq ci pénc mi te comme ndaw day bëgg daraja nañu ko naxanteeg moom ba li mu yor ñu jël ko téye ko doxale ko ñun nañu bëggee ba ñu ca d'accordé ba ànd dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def proposition bi wax ko ko dafa wax baat bu gàtt nii leen man de yàlla ma yónni te bokkul ci xel yàlla yónni la ba noppi ngay wutaat sa dara jëy bopp looloo tax li ma yàlla jox doy na ma sëkk ñu xam ni boobu marché ñu dajawaat ni comme nanguwul bii nañu ànd dal ci kawam ak waa këram ko ba ñu àndee dal ci kawam ak waa këram xatal ko bougé ndax gëm ga ñu gëm ni yàlla lañu àndal te ku ànd ak yàlla mën na metti waaye du ñaaw waaw looloo tax ñu sax fa ñu sax la leen yàlla jox gënal leen laleen seen maam yi bàyyil ba ñu demee ba yëg ni boobu it marché ñu ni nag léegi kon nañu def compromis suñu sunu ak mom. te moo di moom mu respecter li ñu ne ñun ñu respecter momit li mu né kenn baña a sa morom ba ñu ca d'accordé ba bind texte ba ñu def bismi muhammadin rasulillah mak ñi juk ñaa déet nak duñu nangu ñu bind bismi muhammadin rasulillah yaay rasulallah kon ñun duñu xeex ak yow yonent bi ni Seydina Ali kon efasel rasulillahi ji Seydina Ali ni ko duma ko efase parce que ñoom bu ñu ko gëmul man gëm naa ko yonent bi ni ko wan ma fan la rasulillahi ji nekk ci kayit gi mu wan ko ko moom yonent bi mu effacel ko boppam ni ko gis nga fa yàlla binde ni may rasulallah du ci kayit gi geneen kayit la ba mu koy bind malaayika yépp seede nañ ko te nag al aqlam wa jaffati suxuf kon lu yàlla bind malaaka yi seede ko bu ko nit ñi bëggee far du sotti mu mel ni loola nag yàlla nangul na ko ko ba jamono ñu gëmul lislaam dugguñu ci diine yonent bi seede ko te ay chrétien lañu damay dikk de ndax nit boo ko bëggee wax dangay joxe portrait

est loin d'être un simple fanatique. Sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter 15 ans à la Mecque, son acceptation du rôle du scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, son éloignement enfin, sa prééducation incessante, ses guerres inégales, sa longanimité dans la victoire, sa sécurité surhumaine dans les revers, ses prières sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau attestent plus qu'une imposture, une conviction. واذا طلبت خطيبا فان محمدا هو خطيب واذا طلبت مجددا لقواعد عقليه فان محمدا هو مجدد لقواعد عقليه واذا طلبت رجل ديانه بلا تماثيل فان محمدا هو رجل ديانه بلا تماثيل وإذا طلبت مؤسس دولة فإن محمدا هو مؤسس عشرين دولة أرضية ودولة روحية سماوية قلناك à tous les échelons où l'on mesure la grandeur humaine quel homme fut plus grand Je suis ni à l'école qui ci la Seyyid Cheikh Ahmed Tijani bi génne bu ko defee kon nag ngeen baal ñu guddal bi loolu dafa mënul ñàkk te nag la mu woon ci nefsatul masdur bu sa dënn fees foog nga ni ox waaw te itam nit ñëpp kenn ku ne bu ñu leen bàyyi woon li ci seen dënn yi ñu génne ko fi ak weer du jeex waaye ñu sàcc rekk waxal leen loolu xam naa bëggu ko sax waaye kon ñu delloo ko yonent bi te nangu moom mu tëbbu ci barke yonent bi ah mu mel nak nag l'histoire se répète encore une fois li ma wax yépp tey dëppoo na ci wàllam fa tabarakallahu kon ñu mën nangu ni chiaaram tey devisam tey mooy inna arsalnaka shaahidan wa mubashiran ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا بوب موي كرم تاي نونكوي باي ان شاء الله دا نيو جوخ كادو غي سونوي كليفا نيو نيانون بو كليفا غي تيوي نيو جيتال بات يويو تي تورو نجابوتي نيو باي سيرين منصور مو جوخ لين

kanam gi rek la nit ñi namoon waaye kàddu yi li mu fi wax ba abadal abidin duñu ko jeex waaw tollook rek xam naa di nafaraka nafaraat moo tax kon nag ñu jox kàddu al Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour mu wax leen ñetti baat yi mu leen di wax jox sëriñ Pape Malick mu ubbil góor gu tedd gi moo dugg ci biir sujet am na ko yàlla mottali lépp te képp ku ko ko yéene nga ànd ko ak moom yàlla yàlla def jàmm yàlla yàlla def sutura asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmani rahim والصلاة والسلام على من شرفه الله بالرسالة الإسلامية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين yéen bokki jullit في fi teew ñu ngi di nuyu jiital ci nuyo bi ki nga xam ni moonu fi dajale tey mu di fadilatu cheikh ahmad tijal si di nuyu itam seedeem yi toog ci wetam ndax tey bëccëgu daara te lu amul seede baax looloo tax ñu disposé ko nii bàyyi ñii nga xam ni mat nañ ko seede tabaarakallaahu ndax fekke nañ léppam ñu toog ci wetam di nuyu itam responsable yu parti yi ak chef coutumier yi ñëpp fa tabaarakallaahu répétition lay doon su ma ci jaadee ndax Serigne Moustapha wax na lépp mu mel ni itam waxam kenn amatul loo ciy teg wante nag nun dañu bokk mission Serigne Cheikh jël sunu bàyyi Malick bii def ko muy sunu njaati gi mu rafetal ko lool waaw yàlla dogal jël soxna moo nu taqale ak moom mais ñoog moom ñoo daan bokk benn lal bu nuy fanaan mu mel ni itam naaj na te it luñ fiy wax dafay xaw a niru conférence ci biir conférence te nun indiwuñ leen fi kii toog moo leen fi indi wax nag dafa jafe ndax boo waxee te waxuloo dëgg rekk yàq nga sa wax te mës naa dégg ci moom mii mu ni sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ni wax balaa am war ngaa xam li ngay wax xam te ñi ngay waxal xam fi ngay waxe moom mi mu teg ca bu ca ñeenteel ni nga seetem ndax jamono laaj na ko wala laaj ko bi ci des moo di tëgg ay niveau la te nit ñi seen mentalité dafa wuute soo bëggee wax ak nit jox ko dëgg natt ko ci mentalité am bu dee kenn dana yomb mais bu dee mbooloo nag dafay xaw jafe ndax kàddu bi benn lay doon te ku ne war na la fekk fa nga toog nga dégge ko ci sa mentalité bopp loolu nag boroom la am moo tax ñu woo ko tey fii mu mel ni daaw ba ren ñu ngi ci xare waaw daj nañu ci lu mburu dajul ci biir fuur wallaahi ba yàlla dogal ko tey moo tax ku sonn rek yaa sonn wante yàlla moom noppi na dem bi ci des mooy wolof dafa wax ni ku wal mburu tudd dëkk waaw kon bu ñu leen ci dajalee tey te mu am juróom-ñaari at génnul war nañu leen a wax lu tax génnul ñu jëkk ba tey ñu génne ko war nañ leen a wax lu tax ñu génne ko xam nga àdduna bi dafa bare li tubaab di tudde démagogie nit ñi daañu topp ñaari baat yooyu ba tabax ci citadelle une citadelle imaginaire wante nag lu mu rëy rëy rëy for puso ngir dëgg gaar ci mbubb bu bët moo ko ëpp mujj waaw moo tax démagogue foo ko gis rekk topp ko dafa wax ba xar ñu topp ko fekk li moo wax dara nekku ci su ko defee nag bëccëg la bu nga xam ni li arab di wax dafa am solo arab dafa wax ni ad dahru yawmani yawmun lak wa yawmun alayk arab dafa wax ni dund lépp ñaari bëccëg rek la bëccëg bi nga moom ak bëccëg bi la moom mu ni bëccëg bi nga moom bu ñëwee def ci yiw ba ñépp xam ni def nga ci yiw mu des bëccëg bi la moom ñu ni bu ñëwee nag def ci njàmbaar ba ñépp xam ni def nga njàmbaar moo tax bëccëgu tey bi noo ko moom te yaakaar naa ni suñu fi pàkkarti woon itam mu dagan shariatan ndax yàlla loo ko tudde rekk bu dee boroom kilifa nga mu jël su ko defee nag doomu aadama yàlla def ko bind ci forme bu rafet indi ko fii ci àdduna seetaan ko nag yëfu àdduna tilimal ko mu wan ko ni ko doo mën a jariñoo sa dund te jegeñu loo ma te man dama set séexlu te ku setul mënuloo nekk ak man mu war def effort nag pour summeeku ci tilim tilim yooyu yëpp ndax mu jegeñ yàlla yomb na na taqoog moom rek loo yàgg a taqool bu yàggee nga yor melokaanam bi ci des laaj la dama ko koy laaj moom xam naa bu demee ba ci biir waxtaanam mën cee tontu ñu jariñu ci dafay ñaari baat ci alquran yu ma la jël waaw moo di yàlla dafa tànn iraada muy volonté bopam bu mu bokkalu ken innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun tan mashi'a muy ciobare bopam bokku ko ken muni wa ma illa an yasha allahu rabbul alamin ma bëgg xam nag ñoom ñaar bu ñu mbëkkantee moom iraada ak machia nan lay nan lay ko nit ñi di yég ci seen biir dund ak ñoom ñaar ban moo ci ëpp doole iraada ak machia yonent bi nag wax na ni inna lillahi ibadan ida araadu araada kon nag nga xam ni nit mën na góor góorlu ci pax-pax ba iraada yàlla mu séddu ci mais machia nag yàlla moo ko moomal boppam wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin waaw su ko defee nag pierre pierre d'achoppement moo di xeer wi nga xam ni moo tiim bunt bi te bu daanoo rek li woon ci kawam yépp daanu bi nga xam ne ni moom la doomu aadama war a fonk mooy ngëm waaw idal iman ba fala amana ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا waykat bi dafa wax ni seetlu leen fu ngëm sànkoo rekk insécurité dugg si waaw fu ngëm réere rek boo demee fekk fa mu waroon tëdd yépp insécurité fees ko del loolu defe naa mën nañ ko gëm ci jamono bi ñu toll bu ñaareel bi nag ci kendu yi nga xam ni mooy dimbale nit pour mu mën jegeñ yàlla mooy mu am kilifa fii ci Sénégal nag kilifa liñ ci xam mooy kilifa aada diw doomu dammeel la woon dammeel la nga daan toog ca suufu garab gële mu dem toog fa moom mbubbam ñu wër ko muy xàddamiku boobu taxu ñoo jóg xam nga ban kilifteef moom la wax mooy kilifteef gi nga xam ni su yiw doon ñëw tey benn rekk du ko moy loolu moonu booleeg moom tey su ko defee nag ñaar wax naa leen ko ba tàyyi xaw ma ku leen gën a sonn mooy ki bëgg a béelal li yàlla tegul ndeyjooram jooram ak ki bëgg wàññi li yàlla teg ndey xawma ku leen gën a sonn ci dund bi waaw te moom mii yàlla de ñi mu am ci ñu baax bare nañu lool fa tabaarakallaahu waaye bii nag jafe na de dama koy yeeslu nag suma paree ndax moom bëggul ci ku wax ci moom dara waaye nag yéene dafa foor yaakaar foor wëllëre foor looloo tax tey nanu jéggal rek ñu wax ak mbooloo mi ci moom waaw te yàlla daf ko may lenn mooy dafa xam li mu bëgg te xam fi mu koy wute xam nga bari na ñu xam li ñu bëgg te xamuñu fan lañ koy wute yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko ni ku la bëgg a xam noo mel mu ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi waaw yàlla daal yar na ma yara yar rafetal sama yar ba yëg ni ku gën jikko amatul cheikh alxaaji omar ñu laaj ko mu ni tere lu garaaw la tere lu bon digle lu baax ci jamono dafa am boroom su ko defee nag wuute bëgg-bëgg ci règle yi dund la bokk waaw bokkook nit parti bokkook moom waasoo bokkook moom tariqa naa bokkook moom sax diine waaye nag lañ ca bëgg mooy mu jur yitte bu juree xëccoo rek àdduna tukki kon nag loolu képp ku yàlla def ngay kilifa war nga ko bàyyi xel waaw Paul Valéry daf ko wax ci baat yu gàtt waaw il n'y a rien de plus fécond que ce qui permet aux esprits de se diviser et d'exploiter cette différence, même s'il n'y a point de référence commune qui les oblige à s'accorder. Quoi? su quoi fait, si fii ci le réew mi daaw ba ren ku pour Sénégal Nous ñu wax leen tey ni leen réew ken munu ko te Cheikh Ahmed Tidiane mi dugalu ci loxoom ku ko jëmit kayit yay bari rek mais du baax waaw ko jéem laa la wax kayit yi mooy bare mais du baax dafa ko xam xam bu mu ko bokkalu la kenn loolu moo tax ku bëgg a defar réew mi génn ci loxoom sa taax dana tëj nga dem ñibbi sa kër bi ci def nag mooy thème bi mënoon nañ ko woon ni ko waxtaanal nu ci crise wala ñu woo ko ni ko waxtaanal nu ci leneen mais dañ ko woo pour mu waxtaanal nu ci l'unicité de waaw mu mel ni nag loolu devoiram la ndax am na ñoo xam ni bu ñu waxalee nitu àdduna rek dañoo triche mais yàlla lañu war a waxal wala ñu waxal nitu yàlla waaw looloo tax nag tey mu nekk occasion pour ñun ñu delloo ko mbàttu bi mu wax nu li nga xam ni nii li ma wóor ba wóor ma mooy bu ñu doon wóor daara yépp waaw bëgg ku nu ci waxal comme moom duñu ko gis waaw bi ci des nag ñu wax moom waaw dolli ko rek mu muñ mu muñ ndax cheikh cheikh alxaaj Omar cheikh alxaaj Malik cheikh alxalifa ñoo ko téeñ yan ko moo tax yan bi du diis ci moom mukk ñooy sëriñam waaye ñooy nawleem moo tax ku dul ñoom mënuloo koo gaañ waaw ci àdduna mënul nekk ku dul ñii ma wax mënuloo koo gaañ wala ku ko bëgg a gaañ boog na nga ñëw ma jox la conseil d'ami moy bo mënul fexe ba mu wedd yàlla bay bo nga wuti fanen fo teud te loolu defa na mënul nek waaw ko defé nak ya cheikh nga muñ waaw nga muñ ndax laqad asma'ta law nadaita xay walakin la hayata liman tunadi waaw wax nga ba sonn waaye ki ngay waxal dafa dundatu ku dundul nag boo ko tiimoon di wax ba ca suba say du waaw su ko defee nag yàlla na nu yàlla bàyyee ak yow dafa naaj te moom bu xasee toog dañu ko wekk ba nga xam ni wax dara ci xàqam sax waratul dañu war a toog rek noppi te itam li sëñ Moustapha wax na na na doy na tabaarakallah te comme sëñ Pape moom moo ko war a ubbil loolu dama ko doon sol ci seen nopp du ko neex na man xam naa waaye su ma jógee ma yees ndax am na loo xam ni ëpp naa bañ a wax waaw kon nag ni sa kanam rafete yal na sa gannaaw rafete nu ko ëpp li nga bëgg ci zahir ak ci baatin yaa ko xam yal na la yàlla defal lu ko ëpp fa bi ci def nag mooy ñu xamal la ni la àdduna mënu koo guddaale nag waaw ba nga fakkatal mënul nekk ku ko xamal safaan waxal ku ko xamal safaan rek waxal waaw fa tabaarakallaa kon nag maa ngi jébbal kàddu gi sama njaatige di leen baalu àq dafa naaj ba noppi te bu nu ko toppee timis fi la fekk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum wa rahmatullahi bokk yi fi daje noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di baalu àq yitam noo ngi leen di massawu coono dafa mel ni li ñu fi waroon a wax sama ñaari bokk yi jiitu di cheikh Mouhamadul Moustapha ak cheikh Mouhamadul Mansour wax nañu ko mu mel ni itam bu ma nee samay bokk ma ndax li yàlla dogal bëccëgu tey mooy ñoom laa am ñook ñanu ko bokkal mu mel ni ci turu kilifa gi di Seyid Cheikh Ahmed Tijani dafa am kilifa yu fi teew mu wax ni nañu tudd seen tur pour won leen ni